Euh, RFM matin ñu def nag taxaw seetlu ci li am démb ca diwaanu saalum muy accident boo xam ne euh, jur na coow te yéen a koy wax sànq Chérif euh, ñu ci sàkku ak dal diggante Mali ak Sénégal benn askan la benn peuple la. benn peuple la bennam réew la woon laataa fédération gis nga ci jamonoy fédération di Mali laataa muy tas gis nga ko début année 60 diggante Modibo Keïta ak Léopold Sédar Senghor drapeau yi benn la étoile bee leen séparé boo xoolee devise tam benn un peuple un bi mooy camions yi tamit li leen seen présence mooy Mali amun port Bamako donc comme jëwun géej portu Ndakaaru moom moo leen di dundal moo tax camions yi di jaamante boobu ak léegi mm. di yeb marchandise muy loo xam dañ koy dundee wala camion wala carburant di ko fa yóbbu loolu moo waral kon corridor bi comme ni ñu koy waxee Dakar Bamako camions yi di fa dem ba bëri lii nag li am na lu ko indi loo xamante ni xam-xam yëpp mhm. xam na ni laataa lii di am diggante Dakar ak Bamako saxaar moo fi amoon chemin de fer bi tant que nag on n'a pas réhabilité de fer boo xamante ni réew yi ku ñëw yaa ngi dem doo fi def tus mhm. fii la ni mujj donc il faut qu'on réhabilite le chemin de fer Dakar Bamako su ko defee dina éviter contourner Kaolack dinañ traverser yeneen ville du Kaolack yeneen ville beneen bi mooy boo contourner dëkk yooyu mais économiquement sax day toucher Kaolack donc mm-hmm. parce que ku ne xam ne ni camion yooyu ñu ngi fay def donc il faut que saxaar gi ñu dekkalaat ko gaar yi ñu defaat ko problème bi ñu mën koo régler suñ ko régler wu dañ nit ñi dinañ faatu mhm. on va perdre beaucoup de temps parce que imagine la camion bu jógee fii jëm Bamako li ngay traversé ci wàllu douane et cetera waa Mali sax pour dundal leen ça pose un problème beneen bi tamit mooy tali day yàqu ku ne xam ne ni fii on dépasse beaucoup de milliards pour réhabiliter li nga xamante ni kon moom mooy tali parce que camion yi gis nga li ñu yàpp dafa diis mhm. chaque fois nañ defaraat sa xaalis fii nag liñ koy wax bëri na chaque fois on on pose pas le problème beneen bi comme ni nga ko waxee responsabilité dafa baax tamit ci wàllu njiit yi démb tamit gis nañ ay kilifa yu ci yëkkati kàddu rawatina ñun suñu ministre bi nga xam ne dénk nañ ko am la dem bind fa loo xamante bon yu mel nii bu amee ci ay diggante réew dafa daal dal doo nekk tëj il faut enquête am nit ñi dal si parce que njaboot gi benn donc comme da nga njaboote ñëpp nag bu amee bërki dee am na accident ak benn dee faatu nañ la même donc il faut que ñi nga xamante ñoom ñooy jiite aussi yu mel ni bu amee ñu bañ déglu rek influence bi sur les réseaux sociaux parce que yow mi jiite ak ki jiitewul bokk leen donc réseaux sociaux yi mën nañoo irresponsable di partager ay vidéo yoo xamante nii mën na yee fitna parce que si vous vous bien en 89 lii moo fi indoon problème ak Mauritanie ay nit ñu irresponsable benn affaire bu ndaw taal fitna parce que mbir moom mën nga ko yu mel ni bu amee nan nit ñi tey parce que bu fi fitna amee ça n'arrange personne du tout monde bi fi toll nii yàlla Covid Mali ñi ngi jóge ci ay guerre ñi ngi instabilité soxla nañ leneen lu dul ay ci hmm. a dal fitna ak yu ni mel beneen beneen bi mooy aussi nañu suturaal nit ñi ñàkk seen bakkan ci ay accident parce que li ñu gis Fadi démb mooy woy ñu ngi image mbokk yi waaw nañu xalaat mbokk ñi nga xam ñoo ñàkk seen bakkan parce que yi ni yi ni partagé c'est pas bien mm-hmm. moo tax même les sapeurs pompiers ak force de l'ordre bu ñuy intervenir encore une fois mm-hmm. nañu njëkk bàyyi xel parce que léegi nit ñi si ay téléphone la ñor am na ñoo xam ne yu mel nii bu amee au lieu ñu xalaat secourir nit ñi mm-hmm. dañuy filmer je pense que nañu ay rideau wala ay dara muur ko suturaal i jeex dafay des mënu ko dindi. Mm-hmm. et puis loolu douleur la boo xamante ni njabootu ñàkk seen bakkan. Mm-hmm. day des si ñoom ba. muy lu tiis euh, ni ko Chérif euh, waxee. je pense que li Chérif wax yëpp lu am la. Mm-hmm. Euh, wax nga autorité yi ni ñu war a taxawee mais ñun tamit population yi tamit dañoo am problème parce que Afrique la ñu nekk comme ni nga ko waxee Mali Gambie Sierra Leone Guinée su ko tubaab bi rëddul woon yëpp benn benn peuple lay doon. foog ñu bàyyi. camion malien camion gambien camion guinéen parce que acci accident mais comme dañuy wax accident bi fekkoon camion sénégalais moo moo moo defoon accident bi est-ce que dina am problème yii du du ci am mais parce que benn beneen réew moom moo ko def moom te lim ko wax ah. tamit réseaux sociaux yi bokk na ci li li attiser parce que da ngay ñëw gis euh, commentaires yi ku nekk di yàq kii alors que ça ne devrait pas être le cas mm-hmm. camion yi du camion malien yi kese camion yi daw ci tali bi yëpp xam nañ gis nañ nu ñuy dawee te loolu ñuy euh, réguler transport bi ñoom ñoo war a lijjanti problème yooyu mu muy amee mm-hmm. mais lu mel ni am population bi jóg ñi da koy fajal boppam loolu ñëpp xam nañ ni c'est pas productif foo boo ko def euh, représailles dina am parce que fi monde bi ni ni Maliens yi dëkkee fii noonu la Sénégalais yi dëkkee fële c'est pareil te ñu ñëpp même peuple lañ mm. da gis benn kër boo xamee ni mais dañuy dañuy takkanteen biir. day ñëw mais c'est pas euh, mais mais c'est partout c'est c'est le c'est le même peuple en fait. mënu mënuñu ñëw ay jaral lan leen di wax. donc euh, ah, affaire bi métti na. métti na c'est vrai voilà une forte communauté sénégalaise des Thiam c'est pareil pour la Côte d'Ivoire. comme comme je reviens ni ko Chérif waxee aussi tamit ñi diriger tamit euh, faw ñu. ñuy moytu émotion parce que c'est pas l'émotion qui gouverne mais plutôt c'est la raison doo réseaux sociaux yi gouverne wuñu Sénégal mais des fois am na jamono l'impression que ce mm. sont les réseaux sociaux qui gouvernent ce pays les autorités réagissent en fonction mm. de ce qui se passe sur les réseaux mm. sociaux et suñ demee ba yegg foofu nag quand c'est très grave mm-hmm. li ngay wax rek man demoon naa Mali en tailleurs yi. ak mm. yooyu dañ fa bëri loolu soo demee seen. marché bi comme les bijoutiers Côte d'Ivoire également. ñu nga fa kon benn dëkk la mais beneen problème bi am moo nekk tëli yi ñoo xat ñun ñëpp jaar nañ biir Kaolack. Mm-hmm. gis nga stationnement yi ni muy demee ni tëli bi xate ak yooyu yëpp yooyu tamit war nañ cee bàyyi xel. Mm-hmm. di dégager voie yi parce que tamit nit ñi fu leen neex la ñuy gaare fu leen neex lañ tax organisation tamit dafa war a am kon ministre bi kàddu yi mu yëkkati lu mu war a gën a xool mooy lépp ngi taxaw fii te gars yi à vif allure dem. Mm. de même bi ma demee Koungheul tamit loolu nga fay gis. Mm. accident yi c' est xëy na bii moom moo am mais suñ ci jugul y aura d' autres accidents kon nag nañuy gën a xool ñu gën a defaraat secteur bi. gën a mm. xoolaat. li jaa wax rek loolu tamit ànd naa ci camion malien guinéen ak nangam camion camion la yaakaar naa chauffeur bi du intention. di bëgg a rey ay nit ñeenti nit yaakaar naa ko ku dofa ku yëpp ci journée yi. mu ne da dem nelaw. benn instant dafa nelaw parce que wax dëgg yàlla yu doy waar c'est regrettable. ñu ngi jaar loolu parce que da ngay gis ñu jël benn nit boo xamee ni dafa war a am nombre de travail nga multiplier ko par trois mais yi lay fii ñaata accident yoo xamee ni fii c'est des chauffeurs sénégalais wu te ay nelaw moo ko andi. dëgg la dëgg la xam nga nit ñi duñ ci bàyyi xel. Mm-hmm. mais sunu collègue yi nekk leeral point net ba ñu gaañoo. Euh, dan ni dañoo daje camion malien. c'est foofu la commencé te nit ñi bàyyiwul ci xel. dan ni camion malien la ñu dajal te choc bi amoon ci nit ñi. Euh, loolu day ànd ak ñoom. maanaam camion malien moo rey xale yi. te loolu buy dem di dem. après day indi jeexital ci nit ñi. Mhm. moo tax ñun euh, responsabilité bu rëy la ñu am. tout à les médias bu fekkee dañuy stigmatiser population bi ñoom it dañuy stigmatiser parce que bu nee camion malien. Mhm. camion malien camion wala ku violé euh, bi xeet la bokk dañuy mujj. Euh, jàpp ni mhm. ñun problème yi am Sénégal yëpp étranger yi ñoo ko fi indi foofu la problème bi nekk menace bi dëgg foofu la nekk te ñu def ndànk parce que xam nga ñu ngi gis li xew Afghanistan day amul peut-être page inter pour en parler mhm. mais li xew Afghanistan nga xam ni États-Unis yi dañ fa jóge les forces américaines la dañ fa jóge ba léegi nii taliban yi euh, Afghanistan nangu nañ ko mhm. mais li xew Mali également danger la pour ñu ñi ñëpp mhm. parce que les la les forces Barkhane là français yi buñ fa jógee mais ñi ngi redouté euh, djihadistes yi ñoom Al la ñu dem nangu dem capitale nangu ba ma ko mhm. te loolu sunu danger lañu mhm. donc peuple yi benn lañu. Euh, je pense nañu booloo. Mhm. Euh, jéem a seet ñu ñuy xeex ak ennemis yi. parce que ennemis yi bëri na. déjà euh, Ebola ba mi ngi suñu sous région bi. génn na Côte d'Ivoire. génn mi ngi sunu sous région bi nañu def ndànk. yaa variant delta bi. ci coronavirus bi. dañoo bëri ay ennemis y a le djihadisme. nañu jéem a seet moytu euh, ndaw ndaw ay foron yu bëri ndaw ndaw yi nga xam ni day mën a taal jëppeet suñu dëkk yi mi faa di pour rappeler mooy Sénégal aussi même sur le plan économique dafa nekk concurrence ak le port d'Abidjan bu fekkante ni da nga xatal ñeen ñi aussi bu ndawee dem de l'autre côté déjà y'a y'a un sérieux problème je que kilifa yi doon ko régler et le heureusement qu'il a supprimé ce poste polémique là bi dem fan sur sa page Facebook tant mieux donc parce ñuy euh, jaalewaat encore une fois njaboot ñi ñàkk seen bakkan c'est très douloureux euh, de perdre un membre de sa famille comme ça loo xam ne peut-être mënoon ko éviter muy lu jëm ci wàllum accident yi il faut le dire euh, il s'agit pas de dire camion malien ou camion sénégalais c'est accident qui a coûté la vie voilà foofu laa bëggoon a ñëw Pafara juste rek mooy ñi nga xam ne dañuy ñu jaalewaat rek encore une fois ñi ñàkk seen bakkan comme ni ñu ko waxee naqarluwaat accident yi gis nañ ko Ila Touba ak Euh, gis nañ ko également ci yeneen zone Chérif mi ngi koy wax euh, foog naa mat un mois euh, onze morts njum njum laay wax ça sa fait même pas un mois li ñu nemmeeku ci accident yooyu yëpp saa yu bakkan rotee dañuy gis quand même ay nataalu ñu ñàkk seen bakkan ci réseaux sociaux yi su ma nee nataal nag am na ñoo xam ne dëkk yi ñu jëndal ñoom ñooy génn jël seen ay sër ak yooyu sàng leen mais am na ñoo xam ne lañuy def moom mooy fexe ba ni man maa am scoop bi photo ki ñàkk façon brusque loolu également lu ñu war a defaat taxaw seetlu bi léegi footballeur yi ñoom danoo bañ leen sax toujours gaañoo gaañu metti ñoom ñoo ñëw ñoo wër kenn ku photo ku film c'est ça waaw même démb mm. match Bordeaux mm. c'est c'est important c'est important voilà et loolu sénégalais yëpp a ko ñaawlu que ni bu nit euh, faatoo rek wala mu gaañu boo ñëwee sax léeg sax ngis ko blessé au lieu ñu secourir la li ñu njëkk a def mooy filmer la dugal la ci réseaux sociaux yi gars yi partagé la bu ko defee nga ni ma am euh, ma ëpp partage wala maa joxe information bi euh, je pense que ñàkk bakkan amul luñ cee scoop justice ah. populaire baaxul également ça jaajëf 7h40 jot na ñu daw RFM euh, jaajëfal bu baax Pape Fara ak Mortala RFM matin Philippe Tine la ñuy dalal mu jiite conseil national du laïcat du Sénégal rendez-vous à 8h pour la deuxième partie à tout de suite